alhamdulilah alhamdulilahi rabbil alamin asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokki ami internet bu association ànd taxawu ñu wéradi TV Baye Pape Niang dellusiwaat di leen nuyu fañ leen daan nuyoo di leen nuyu ci yermande di leen nuyu ci jaamu yàlla waaye di leen nuyu ci barkeel gi ngeen di barkeel seen alal di jël seeni ñaq di ko tàbbal ci liggéey bi yàlla bi ñuy def nii rawatina kaa boo xamante ni dugal nañ ko rek di ngeen ci jaayanteeg yàlla gën gaa néew di ngeen ci def seenu ñaq te yàlla rek tax ñu gis kaa bi nga xamante ni moom lañ mujjee dugal muy kaawu ki nga xamante ni mooy Moustapha di xale bi jógee Gambie kaa bi nag mi ngi avancé tuuti tuuti ba sax am na benn association bu nekk bitim réew bu nekk Italie boo xamante ni wax dëgg yàlla ñoom ñu ci tàmbalee def ay jéego seen bëgg-bëgg mooy ñu jël Moustapha yóbbu ko bitim réew ngir faj ko. kan mooy Moustapha Moustapha lan moo ko dal ñi nga xamante ni soo seetaanu ñu woon vidéo bi nañ déglu Moustapha te ñëw. mustafa yaa ngi jàng. ah bàyyi naa jàng. lu tax jàng. dama feebar. li nga feebar moo tax nga bàyyi jàng lan nga doon jàng. daara. daara nga doon jàng. Ah. Eh, jotoon nga mokkal dara. fàtte na. fàtte nga li nga jàngoon. waaw. bëgg ngaa delluwaat jàng waaw. boobu mooy Moustapha vidéo bi. am na coupure ndax bi ñu koy def xale bi jooy na ci jooy metti yoo xamante ni mënatuñ ko woon a muñ loolee taxaw ñu dagg vidéo bi ndem nit kese lañ te amaana suñu borom moo tàbbal ci sunu xol yërmande ba bu nu gisee xale buy dund lu metti wax dëgg yàlla rawatina comme Moustapha ni mu ko doon dundee euh, malaat mental dóor ku sémmiñ ci bopp ba ndaal bopp bi ubbeeku noonu yëpp mu di ko dund ci métti ki tartar waaye li ñu gën a frappé ci moom mooy lan nga bëgg mu ni màgg ba eggale sama jàng alxuraan dimbali sama yaay. wax dëgg yàlla ñoom maman Rose mbay nekk fële ca diwaanu États-Unis ñoom tamit ñu jàpp ci bu baax a baax ngir taxawu ki nga xamante ni moom moo di Moustapha ak képp koo xamante ni tàbbal na ñaxam ci Moustapha waaye ginnaaw Moustapha dafa am nag. xale boo xamante ni sëriñ fàllu la tudd sëriñ fàllu dañ leen di bàyyi ngeen seetaan lan moo ko dal ñu soog a ñëw ci way juróom laaj ko li ko dal num ko dalee ak kañ la ko dal ak lan la ci bëgg ngir dimbali xale bi ci mettit yi nga xamante ni mu ngi koy dund nanu seetaan mettit wi nga xamante ni moom la xale bi di dund li ko dal lan la gis ngeen ko ñun ñëpp ñoo ko gisandoo xam ngeen nii lu metti la te li si gën a doy waar mooy dafa mel ni dañoo sotti ci bopp bi ndox boo laalee bopp bi nii dangay gis ni bopp bi dafa nooy nepp nepp fees dell ci boppam bi dem na ba moom xale bi àttanatul sax bopp bi ngir metti bi muy dund ñu daal di déglu ki nga xamante ni mooy woy juróom bi nga xamante ni moo ko fi indi mu wax ñu xale bi lan moo ko dal. yaay booy na nga def. maa ngi fi. noo tudd. man Fatou Gueye laa tudd. Fatou Gueye am nga borom kër. sama borom kër ne la. sa borom kër. dafa ne la. dafa génn àdduna boobaak léegi yàgg na. yàgg na war naa am juróom-benn at. war naa am juróom-benn at. xale bii nga àndal salan la. sama sët la. ah sa sët la. ana yaayam. yaayam mu ngi foofu. yaayam mi ngi mi ngi Touba. mi ngi fële Bambey. Bambey. Mhm. ndax mën nga ñoo wax xale bi lu ko dal. xale bi daal bopp bi moom melutoon nii naka la juddu nag werut moom werutoon mënutoon mënta wax sax ba tey werutoon mënutoon a dox bi mu doxee nag. Mhm. li mom yàggul sax li dal digante tabaski be ki bi rek la koy commencer ñu naan bop bi bop bi muy law rek di dem. diggan fu ma deg dem na fa lu ma luñ ma digtal ma ma dem ca faj waaye dara muy law rek. mu soxna su bax c'est moo mo korom korom mo na da dem mu dal di dep. sok ma bolé yow. ma laaj ni ma rek do ci mon dal defal ma ngir yalla dama defa def bu amatuma len lu ndax jotoon nga kaa yóbbu hôpital. waaw waaw. ban hôpital nga ko yóbbu. hôpital jannatu. hôpital jannatu bi nga ko yóbboo lan lañ la wax ni moo dal xale bi. xamuñu ma dara dañ ko rajo woon nañ ko de. mu woo mu ñëw. ñu rajo ko. seet opéré opéré benn côté bi. ma ñëw mu mel ni mu dem ba mel ni daa mu dellu yokku. naan ma li xëj na muy ay rab lu ne ñu wax ko man man daal dama dawa dawa dawa daw ba mënatuma daw rek nga di man lañ ko mayoon na may ba fere bi xale bi fere yow lañ ko may waaw man lañ ko may ndeysaan nga jël say engagement tey nan ngay def pour dundal xale bi man man kay xanaa nit sama doom yi mag yi ma nekk rek moom mooy def la waaye man mënumaa liggéeyi leen mënumaa dem fen papa kenn ak yaayam xanaa sëyuñu. déedéet. ah ndeysaan euh, ñoo ko ñoo ko déggandoo wax dëgg yàlla xam ngeen ni xale bi li ko dal metti na trop metti na ba fu metti di am te ku ko xool xam ni wérul bi muy dugg fii mu ngi fiy dugg ak jooyu metti ci métti wi nga xamante ni moo ko dal dégg ngeen way maamam ji ni mu ko waxee nee na xale bi li ko dal yàggut ba mu feeñee ci moom diggante tabaskeeg léegi damay wax ni su matee ñaari weer ba ñetti weer ci la yam te suñu arrêté wul tawat bi mën naa yóbbu xale bi ndax gis ngeen ni mu neewee ba jël bët bi jël na lépp loo nekk ci bopp bi ginnaaw si nag mi ngi tàmbalee jël bët yi fi mu jëm mooy jël bakkanam wala yaasibillah kon yéen ami internet yi yéen bonne volonté yi yéen jaamukatu yàlla yi yéen defkatu lu baax yi xale bi Bambey la dëkk yéen lay xaar ngir dem hôpital man de am naa ci njort bu rafet ci ni bu demee hôpital Fann gëm naa ni dinañ ko faj ndax am naa ay kaay kaay yoo xamante ni

sëñ Fallou looy jooy. <laughs> day metti day metti gis ngeen ko bopp bi li ci nekk xam ngeen ni boo leen xoolee gis ngeen ni mu nooyee lépp dafa nooy nepp fii yëpp dafa nooy yéen a koy gis dafa nooy nepp yàlla suñu boroom ndeysaan ndeysaan wëlbatikul sëñ Fallou ma xool wëlbatikul wëlbatikul ma xool mu mel ni bopp bi daal li ci des daal bareetul lii daal moo dëgër mooy ci ci ci ci ci ginnaaw bopp bi mooy ci ndong li rekk moo dëgër waaye li ko tàmbalee ci ndong li nii lii lépp nooy lii lépp nooy boo leen gisee allahu akbar gis ngeen ko yépp dafa nooy ba noppi ànd ak mettit woo xam ni fu ko waay natt rek weesu na ko xam naa ni sax day xale bi mbay la jóge waaye man lii ma gis ci moom nii metti na lool ba fa mettit yam maa ngi sàkko ci ana kan mooy taqale xale bi ak fitna bu metti bii muy dund moom mënta wax li muy yëg ci mettit jooy rek la ko mën a faje pour ay mbokkam xam ni moom yëg na mettit ay tartar yu doy waar te jéggi dayoo moom la xale bii di yëg kon nag ana defkatu lu baax yi ana jaamukatu yàlla yi ana sàkkukatu ngërmande yàlla yi ana ñi nga xamante ni seen moroomu jaam nekk ci jàmm rek moo leen di moo leen di bégal ñi nga xamante ni seen moroomi jaam nekk ci ak wér dong moo leen di bégal ma ne ana jaamukatu yàlla yooyu xale bi ay atam soriwul waaye fitna bi muy dund nii dey allahu akbar fitna bu jéggi dayo la maa ngi sàkku ci yéen ni ngeen jàppale Moustapha ba mu am yaakaar naa dem bitim réew yaayam xelam dal maa ngi sàkku ci yéen ngeen jàppale sëriñ fàllu mii ba mu mucc ci fitna bi nga xamante ni mu ngi koy dund képp ku am doom war ngaa xam ni Moustapha war ngaa xam sëñ fàll mii li muy dund metti na lan ngay jooy mettit bi rek mettit mu mënta wax rek moo ma metti rek mettit bi mu mënta wax rek moo la metti mm-hmm. tey lan ngay wax ñi nga xam ne ñoo lay seetaan xanaa lu man rek dimbal ñu jàppale te yàlla tax ngir ñu faj xale yàlla alhamdulilah ñoo ngi santal yàlla bu baax a baax waaye wax dëgg yàlla di am nag naxaru xol ndax suñu rakk ji ñu toogal ak lii nga xamante ne moo ko dal te wax dëgg yàlla nekk lu metti ku am doom wala nga am rakk rangam nga am sët wala jarbat lu man di don mu tol ni ni ma dende ak mom muy apat ti onk nga deg mamam limu wax legi moy li tax muy joy moy métit bi ko dal te mënu koo wax ta wax joy rek lay def onk duñ wax kenn metti na ndax ku fi gis video bi xamne metti na ba fa metti yam mu nek nak lo xamanteni tay buñ ko jëlee exposé ko ci internet bi ngir wan ko jaam ñi dañoo am yaakaar ne niñ leen daan wane ay jaam ñu ciy jàpp ba ñoo ñu delluwaat ak seen sago yaakaar jooju lañ am ci yéen ba tax nu indiwaat kii tegaat ko ci écran bi ngir yéen ñi nga xamante ne seen alal jaamu yàlla rek ngeen ciy def yéen ñi nga xamante ne yéen a ngi war fu ngeen jaamoo yàlla ci seen alal te gisagu leen ko fu ñu war a jaamu yàllaa ngi nii fu ñu war fu ñu war a jaamoo yàllaa ngi fu nu war a jaamoo yàllaa ngi nii muy xale bii nga xamante ne nii wax dëgg yàlla lii ko dal métti na trop kon dañuy tàllal loxo mboolem mbokki internet yi nga xamante ne ñooy seetaan ànd taxaw ñu wéradi TV ci jamono bu nekk ci kaa bu nekk ñu leen di woo ci jamono bu nekk ci kaa bu nekk tey ñu leen di woo ci sunu rakk ji nan ko dimbale jàppale ko ndax waxuma la sax ni bopp bi mel waaye méttitu bopp wi muy yëg ëpp na ndax ni muy onkoo moo lay waxal ne bopp bi day metti te bu ngeen ko xoolee lu ci ëpp da ngay gis ronga ñi di génn day jooy rek fu mu toll gone gu toll ni di yëg métit woowu ku nekk na ko xool ci bu doon sa doom wala bu doon sëb sët ku ci jaar ci am doom muy jigéen ku ci jaar ci bànneexu doom muy góor gu gis doomam rek xamal ni tey jii sa moromum jaam soxla na te gone la mënul wax fii moo may metti nii ni mu toog ni mënul wax mboolem nag ñi nga xamante ne tey tudde nañ leen sëñ Fallou turandoowu sëriñ Fallou ngi nii toog bëgg ku ko dimbale ci feebaram bi ngir mu faju kon ñoo ngi tàllal loxo internet yëpp bàyyiwunu kenn duñu lim kenn ndax ku lim doo matal waaye li nuy ñaan rek mooy képp koo xamante ne sa bët tege na ci vidéo bii nang nu jàppale ci sunu rakk ji ba nu xëy bis wanaat leen ko mu àndaat ak sagoom ba maamam ji espoir bi mu ci amoon mu dellu siwaat ndax dégg nga li mu wax ba mu fereem soow lan ma ko may kon bu sañoon dina ko téye ba mu am soxna yoru njabootam kon na ko ñëpp dimbale jàppale ko te yàlla rekk tax ba aajo ji mu bëgg ci sëtam bii mu faju ku nekk xam na maam ak sët ni nu mel mu gis sëtam lii dal ko te mënu koo sax faj amul lu mu ko yóbboo hôpital nan ko jàppale te yàlla rekk tax ngir bu jógee fii mu mën a dem hôpital bu fa jógee xale bi ànd ak tawféex jërë ngeen jëf salaamaaleykum wa comme ni nga xamante ni noonu ngeen déggee ko Baye seen waxee ko noonu wax dëgg yàlla metti na lool metti na de li tax maamam boobu léegi muy dund saa boobu ba léegi li tax maamam ba mu taxawee fii ak léegi mënatul a noppi xam na li sëtam bii di dund xam na li sëtam bii di dund ma leen di wax nag man Pape Niang ubbil naa ñëpp samay bunt képp koo xamante ne am na cas social du man Pape Niang may dimbaliwaate waaye képp ku am cas social je pèse bien mes mots li may wax dama ko xam ku am cas social mu ñëw fii ci sama bureau ma tourneel ko kaa bi incha allahu rabbul alamin dinaa ko ubbil benn fond de collecte lu ko way jox danaa ko ko jébbal faj ka nga xamante ni moom moo moom moo sabab loolu am naa fi ñaari cas yoo xamante ni dama tourner seeni vidéo ñu dugal seen ay numéro ba ñu dugalee seen ay numéro kenn ki sax malaat ba mujj na génn àdduna te ay nit ñu baree bari dañ may woo ne ma dugalal naa ko cent mille kii ni dugalal naa ko deux cent mille kii ni dugalal naa ko cinquante mille ba boo xoolee li li ñu ko dugalal gën gaa néew mat na trois cent cinquante mille waaye man su ma wooyee nit ki laaj ko ndax ñi ngi lay jàppale dafay wax ni rek yónnee nañ ma fi cinquante mille adduna bii ñu nekk mën ngeen maa nëbb man mën ngeen a nëbb seen bopp waaye mënu leen a nëbb seen borom moo tax man dama jël décision chaîne bii di Hann Taxaw ñu Wéradi TV képp ku ma ciy tourné la ti vidéo maay tànn numéro bi nga xamante ni moom lañuy dugal ci vidéo bi lu waay am te bëgg koo dimbalee jaamub yàlla boobu na ko ci def te xam ni kooku dey billaay lazi laa ilaha illallah ku loxoom set la malaat yaa ngi dee ñi ngi leen di defal ay collecte mais li tax a jóg collecte bi sax duñ ko def moo tax man ma jël sama initiative ni képp ku may dugalatal vidéom di ko dimbali sama numéro laay dugal wala ma tànn benn numéro bu loxoom set dugal numéro boobu luñ ca collecté jël malaat bi duma ko bàyyi mbokk yi de jël malade bi yóbbu ko hôpital fu mu fu mu toll ma ñëw xamal leen ne malaat bi ngeen doon jaayanteeg yàlla fii la toll lii lañ ci def lii moo ci des ngir rek ñu mën a dimbali malade yi ñu dugal sa numéro nga lekk xaalisu jàmbur ba kooku jaar fa ñàkk bakkanam na ngeen ragal yàlla xam ni bàmmee la ngi ñëw te kenn ku nekk ci ñun danga faatu <laughs> lan moo lay metti sëñ Fallou galas lan la ndeysaan <laughs>